parce que ñun dañoo jàpp ni crise su amee ñu siy gaañu ñun la puisque ñun ñoo si gaañu jarul euh, ñun ñuy dugg si benn xeex pour le moment lu gën mooy ñu dox tànku jàmm parce que ñun médiateur lañ taxawee jamono ji maa ak di dox jàmm pour que patronat ak état jàmm am seen diggante donc ñun kenn bu ñu bu ñu kenn xaar si xeex parce que euh, déjà conditions yi metti na su ñu bëggee dem si ay xeex ak pour état wala xeex pour patron de presse day metti lu ñu leen di ñaan ñoom ñaari parti mooy nañu toog autour d'une table waxtaanee jafe-jafe yi kenn ku nekk am loo bàyyi parce que kenn ku nekk euh, peut-être am nga dëgg si li ngay kaas mais nañ toog waxtaanee ko suñu toogul waxtaanee ko solution du am. parce que ba ñu demee si kanamu président de la république peut-être ñoom lu ñu gis rek mooy tontu président de la république mais président daf ñun la doon tontu par rapport lu ñu ko interpellé dañ ñu ko. entreprise de presse yi dañoo soxla benn fiscalité boo xam ne day méngoog seen doxalin kon dimbalil patron de presse yi loolu lañ fa wax ba ñu toog ak le président de la république moo tax nag nekkuñu si coow ñun jàmm la ñuy wootee nañu toog waxtaan ñaari pàcc yëpp